dañu ne nit boo demee ba néew ma xamatoo foo jëm waaye bi nga jëm lépp la et je ne regrette pas d'être venu à Ziguinchor bi may ñëw fii dama amoon objectif